alo président <laughs> président ça va <laughs> no way alhamdulillahi hari kala eyi mi yettima mi na ñawna yaksina wa ñawna si kër bi <laughs> ana madame num def mu ngi si jabo bu baax ana garda kor ana garda plitacé yi ah <laughs> ana militaire gi bara daaw yi <laughs> ah waaye d'accord ana police yi <laughs> yëpp ñu ngi si yow jàmm alhamdulilah alhamdulilah waaye naka mu na de président waaw waaw waaw waaw d'accord waaw d'accord comme li nga waxoon noonu may def ko waa de wax naa ko wax naa ko madame de defal ma affaire yi géréel ma kër bi ñëw naa si kër bi xale yëpp ñu ngi si jàmm wax dëgg yàlla waaw président lenn laa la bëgg a ñaan mun ma ko may président xoolal man xawma lan sama xol mooy naka si yow rek mboolu yiit maa mboolu yiit maa yi nder benn président waaw waaw yow kay déggoo lu ma la wax sama kër lu xëy suba ba ngoon jot da nga koy am information normale président su may ndogu sax yow day lay woo da nga xool heure ndogu bii ba jot na yaa may jox tous les combats moom ñëw naa waaye wax dëgg yàlla koñ bi yëpp dinaa leen gis ñu waxtaan ndogu bi waa li nga ma jox pour ndog yi koñ bi waaw ñaaf day leen di gérer mi noddi njaay rajax njaay rajax sama xarit la waaw wooy naa waaw waaw d'accord <laughs> président <laughs> jërëjëf président eh, doon doy na dogal dogal fii ak ba waxal ndànk bala nga daan di lobe waaw ñëwoon nga si ngenteel bi <laughs> waaw waaw waaw d'accord président waaw tout à tout l'heure tout à l'heure président merci merci président ok président merci président jërëjëf waaw waaw noppi na ah, président noppi <laughs> président sa ah, waa na nga sa waa bi naka yoon waaye sonn na rek na nga def yaa ngi si jàmm Lobé. ah Lobé yow tey xam naa. waaw mun nga raar de. <laughs> nekkoon si tey kese la sa yaay wax na ma ne ma laaj mënoo ma Lobé dafa dem fan ngay demoon Lobé mbari da ngay commencé di commencé di am ay copain. waxuma loolu Lobé ah ko min ñun si weer koor lay nag. waaw ci lii nga sol pour leen ngay sol ko. mais papa li ma sol lu ci nekk man doomu fenn maa ci. ana Mansour ana Mansour. Lizo Lizo. eh laa la wax ngay wax may Lizo. waaw papa noonu lañ koy woowee di. woowal ma Mansour woowal ma Mansour woowal ma Mansour. lan la day naan sangara walla. holko kewi aɗa bogma eyi lobsu won boga leb jam père yow yaay tudde lena loo tudd papa yo yip ay sirnoo la ah xamoo yooyu père ajiwul yooyu mooy nga xamante ne temps yi moom la gars yi jëflante ay lobsu comprendre nga ay lise kaana comprendre nga parce que per bi xam nga boo xoolee moom xam nga ay temps ak suñu temps bokkul ay fiil père benn instru ma tegal la daj la naka waar yee comprendre nga léegi moo tax père du mën a sip action xam nga ay l'option yu noonu comprendre nga xam nga dañ koy mën a ajji père faaw ngay wax ak ñun sixième dimension di teg ñu teggi comprendre nga boo gisee tay ma xaw a biddati mooy koor gi xam nga benn benn benn benn benn geng sa nii comprendre nga nii ma am benn sang ma bëgg a génn wax ci koor ndax maa ngi naan koor gi dafa metti dangay war mu gën a metti deux heures maa sax yenn saa yi gën a metti comprends nga père est-ce que ay fil action fu may tege yow père lii en su. mun nga yaa dégg. moo gars yi père bi man gars yi loolu man instant toll nii bento single dafa war a taw booy jooy toog ma comprends nga est-ce que ay fil père. comprendre da ko war a dugal ci biir bi kii. waaw lu mu tëddee nii. papa. waaw. dara du ko màcc kii. non man man man mënuma comprendre quoi peut tamit xam nga instrument beeg bit yi mu fi fekk xam nga ak ak développement rap bi peut loolu tamit mën na ko science loo mu xam ne estanton bentool ma doon estan parce que li ma ko dóor nii xaju ci bopp ma sa tamit est ci biti man taluma ko ma doon kaam fii ku jooy ba dee sa yaa juróora gisuma ren di jéggi firi bàcc rek ah bu jeexee na bu xaayee ñor la peer nekk ci rek yow. sëb ndax sóor ma sóor xàngaama ooy sóor xàngaama ay waay ndeke man yaakaaruma woon dinaa di dof waay ay waay ndeke dinaa dof waay ay waay sóor xàngaama sama doom bi waa kaw lan la baa jàmm de eh subhanallah eh. yooy soro fay soro fa soro alaama yooy soro yey laawul mum yooy maltum yey laawul. eh kaw kaw yee mag du jooyee eh, nii lii baa jàmm la yow waaw wax ma la wax ma yow tamit. sor ma sor ma sor ma sor daf na. mooy sama ndey Mansour ay ay Kaaw del wax jàmm yow tamit. mooy sama ndey Mansour Diop. Kaaw Farba dee wax jàmm Kanso loo. ngoone eh, ngoone damay damay woo lobe mooy wool ma Mansour fekk ma wax ak président boo pare ñu woo lobe woo Mansour Mansour ari omon hara mi annda holko kalata mi annda mi annda holko kalata kaw yamata omo wiya bu bu ko seetee ku dee sa yaay tey juraat mu ne ku ko seetee man dégguma lu muy wax mu jëkk muy wax daal koor bii loo deux heures day boo cinq heures day gën a métti boo deux heures dof na waay kaaw doful kii dafay rab muy seen rab def di déglu musique musique lay déglu ngoone nga ne oh. lan ngoone <laughs> ma tiit xaaral ma reere ba pare <laughs> kii day déglu musique yow yaa ngi woor mu nekk fii di jooy man sama fit bi yëpp dem na. Soora Mansour jël appuyage bi dem yoonam ngay wax ngay wax ni xanaa xooloo yëre bu mu sol nu mu tàngee. ah xale yi tey noonu la ñuy def dañuy takk seen affaire yi di wax di wax di wax dañuy rab loolay rab. dañuy rab. waaw na ko rabe si biti maa ngi moom duñu bokk weer koor bi. billaay wallaay te laay dootuma bokk ak moom kër bi. kaw nag mais xale bokk ak moom kër bi he. Ah. he min mi xaal ta mi la xaalaala xaal du ma wax ngay wax wax bi jeex man xamoon naa ne sama koor bi du neex du tàmbali neex c'est ça c'est ça c'est <laughs> ba c'est ça. kaw Farba kaw Farba da am na yoo xam te ne war nga koo mën a bañ di nekk fii di jooy nii di jooy nii. pour lan la lu ko fi jaar. Laobé war na ko woowee Laps. waaw moom yaa ngi ko tuddee li nga ko tuddee dafa am beneen tur rek xam nga xale yi tey rek. Dóor dafa jar a nekk fi di ko méttitlu nañ toog waxtaan ak moom neexu la ne. président laay woo sa yoon président laay woo président. kon nag su ma ñëwee toog président laay woo président président. allo dafa ay góom yu jox ko laax keneen li def ku ku ku ku kaw dara sa xel bàyyi président ci jàmmam président boo ko naree def nii sat minute di ko woo di ko woo day dem ba jéppi la may ko jàmm ak salaam te nga dala sa xel te nga toog kooru wóorum jàmm ak salaam lan la te waxta nga mën a dund sama gaal seen man loo xam kenn duma ko tëree dund ma bëgg a dund dama koy dund man man kenn du ma teggal fi may teg sama tànk fi may teg sama tànk foofu laa koy teg Gan Sène man dama ko mën te dama si tekk dama ko war a dund du benn père moo ma ko tëree dund yow nag yow xam nga jikkooy paa bi affaire rab yi mënoo ko arrêté ba paa bi dellu nga nekk fii di def yoo xamante ni lii moom li ngay def nii képp koo ko tegal mu dof paa bi bu doon keneen sax mu jooy waxuma la ak paa sax réeroon naa man xaw ma lan laa waroon boo réeree ñu wëri la sama yoon nekkul ci loolu man li may dund moom laay dund paa bi mënu ma ko tëree dund man gaal seen dama cay nekk avant paa bi paa bi ba mu demee yàgg na gisuñu ma nekk ci gaal seen yenn saa yi ma yëg concert siste yu toog ma jox ma benn bagage ma téye di nga am comp di nga am fiir kon paa bu dikkee day mën a ceeni ceeni lox mbóota ma lox sama mbóot mën ko mu bëgg a teg xel ma defal ko bras yaa ma dégg you speak you speak paa bi day réglé lañ la yóbbu fay la instant bi yow rab yëpp nga boole yow man bi yow yow yow yaay fat fajkatu rab bu mag bi yow waaw ah, lépp mën a nekk parce que man gars man garçon bi nii lépp lu ma tegal lu nekk dama koy aaj dama koy fii dama koy bëggee. dama koy bëggee dama koy dund yu si. ngay ñamax ñamax yi nii. feeb loolu la quoi dund bi nii méttiwul ku nekk da ngay dund dund bàyyi keneen dund. eh ubal. waaye. yaa ndax la yow est-ce que ça va yéen jooyloo li ngeen jooyloo seen bàyyi ci biir néeg bi pour lan la yéen da ngeen a bëggul sama bonheur wala lan kii sax waxuma waxam. ndax mettroon naa ko en yow moom yaa gën a ñàkk jom ndax yow taxawaalu ngay def jël sa tànk bi mel ne bargalu maama fu nekk nga daar fa fanaanal yow lan la. mais mais waxuma loolu mais bàyyi man mënuma dugg bind sama sang dem ci guddi di dëgg ko daajul hors saa waxtaan moom sixième dimension paa bi di ma jooy si ay troisième dimension pour loolu mu teg ko fan nii nga. deuxième dimension ak troisième ba cinquième laa yemale xam nga lan laa bëgg sa dof-dof lu gi nga ba bu fekkee daa am looy jël di ko nëbb nga wax ko nit ñi yow lan la. mais Galsen bi nii da lay man man man Galsen lay dund man man man man je vis hip hop. waaye yow dimbali ma ak hip hop. oui mais man. doo ko yóbbu ñu xool ko ba du ma ko yóbbu ñu xam nga lan la boo ma moytuwul maa lay dóor ci kër gi ba nga tëdd lenn nag dinaa xam a seen baay dafa jógee dakaar ñëw pour woor si fii may leen ko jàmm ak salaam kii woor wooru jàmm yéen lii lan la. kenn tërewu koo woor moom na woor wooru dund dundam man ma woor sama woor dund sama et sax man gaale bi nii fu mu nii comprendre man ma quoi non parce que man li ma bëgg a dund si gaal seen bi ko am ci gaale bi quoi parce que hip hop bi nii boo koy dund fan laa seul vif seul quoi ah, non daful kii mel amee bu jot nii di ko joxoje lan yow amoo leen la wax yow da nga ñàkk jom ndax yow yaakaar naa ne yow jigéen nga xam nga li ci toppatoo borom kër te ñaan nga yàlla am jëkkër sa baay ñëw fi ma war a toog ak moom nekk ak moom toppatoo ko ñaata at gisuma ko yéen lan la ay lii yéen man téemaa yuuxu waa koñ bi yéeg ma yéen bu leen ma teg gàcce yàgg na ñàkk jom ñëpp seen baay jooy yi mu jooy dafa baax ci yéen man daal vraiment vraiment man lii nag xamatuma ko nag jaaxle naa trop